مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شرم بنو ليت ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xern bi sëriñ bi nongu deeti ñaan faqir dafay nangu dagaan nangul lépp lum la ñaan ndax yàlla na asal xarnu bi naagu dagaan nag ci Mustafa mi nekk marwata Mustafa ak aqi am di Mustafa mi yàlla jébbal xarnu bi ak aqi mboolem ay paret may la poto akarnu bi amana kaama ma dilawa waaye muridi ñooma waana tawatal te bunu woo taw karnu bi tey ji ma wax bane taret ngir yaa ma def antal paret yaa ba bi xam-xam ne yëreet ci sama xel ci karnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan murit yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy boo fabul leenu ne wooy ku yafal ban defi kuy mu delu naatal xarnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam rogg ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun te boon nga jox ko moo ndax yàlla naatal xarnu bi dafa muri ci suturaal mottali jàkka ji ñu naal fo tollu doolu seen alaal ndax yàlla na atel xernu bi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 Brian daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xarnu bi ci yërmande nu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xarnu bi ci yërmande nu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñu seeni sag kuna ñii seeni daay kuna ñii gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona dal mu tan daaw mu gën a far dellu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke geesul xarnu bi wuy na wuy noo ka torax yalwaan amoo ku sarax garab bu daanoo xob yalax bambaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii kadal waa xarnu bi allahu akbaru shamaan jamono moo mën a sabaan xéewali def da awal ngaan ci dabi mboolem xarnu bi li beeg si keegi sax faraan lan daa di woo muy wala ngaan ni xelli koppey dinaan wa tey kor bi astaxfirullah ali asim tuum nan lan daa defi ko te muy neexuloon borom jurbe la wutee xarnu bi xéewal gi def daawal wali baman ci nun di kel keli moo ma jóg di pel peli sëriñ bi jaadu defal nu bi xeewal gu daf daa wala ngaan wax seen nga wuute nga ak seyaan xamoo xuur ak tund ak seyaan gam doxa mandal xernu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku ma ta jox daawoonu nax daawoonu ñaax se doon nga mboolem xernu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbali woon ci xernu bi njëmbali mooy gaay ñëwoon daawe ci xeewali fi woon ñi def feeñ bawoon gi ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa ci ebu teñe añ laax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne merit wala mu xàcc def terit ndaw njombe gaay xarnu bi ànd ak commerçant yi di jaay ñii di ba jaa seeri ba xaay te xam na yaa sunu baay ma tee naatal xarnu bi ñi leen yi xàcc seef ñii defi dag ngir bañ ñii daw baraw beeli fii ma tee nga naatal xarnu bi yaa leen yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xarnu bi soon yoram nu tey nanu dootu nu foog xami dootu nelaw yew nanu yoram nu naatal xarnu bi coonu joxoon la lanu yoroon dootunu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu ku weddi laajal xeer nu bee yaram lu nanu torox lu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xeer nu nun tuxu nun sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bambaa di waay sëriñ bi geenul xeer nu bi murit yi saali nañu ren ngir na yaa leen amewoon joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xarnu bi tijaani yecci nañu tey xam nañ ne bay di suuru booy yaa mën a mani lu doy ma tee nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar wolof keedil ku am yëg sëriñ bi koo xam ne daana xami jaag daa mi angaara ke jóg mi an maam deen mu jeeg sëriñ bi jàll xarnu bi ku masa am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te mun taam njëgu mata sëriñ bi jàll xarnu be koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju ne bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi jàll xarnu bi koo xam ne daana ami taax up. tey mi ngi yeegi ne bu baax bu gën a bam na ca faax sëriñ bi jaasul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne cundung lal yañ yoroon de bi korong ña dooni wuur de bi koyong sëriñ bi jaasul xarnu bi tubaab bi sax perte nañu ñi leen gamoon it peri nañu yaawooti fayi nañu yal nañ yées ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lang fu njulu deeseen falang adduna yaa kanoo weleng sëriñ bi jaasul xarnu bi naar yaa ngi yàlla yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waay mbàkke geelul xarnu bee waay mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu soo yeexee dee melal na kuy ramu ku dee yaa nu tinil waa xarnu bi yow yaay danay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga boodi ahmedu man ngaa defar waa xarnu bee man ngaa defar bi teeki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi asra baag di beer càkk murit yi xarnu bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loox fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi chamir abate na ak dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu bi malee bu nag gaañe xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu may lu jombi maam boole muy daw di raam ak kenta war waa xarnu bi Bamba mu ne fu misaal yaa gi gi war waa Sénégal kenn du la jàll genn gaal say duusa tooyal xarnu bi Seex Bamba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande dey di mbaane teen say kaasa mandal xarnu ku soobu gennaarey dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku corom kaasum ngërëm du mar des ci xarnu bi géeju ikkam gim daa dëtam ba ko secc moog ñoñom mësee bu ko nandal ko xam toqen bi doy na xarnu bi luum loona fooreeyoon raam loona kàngay mi fi wan daan ne bari fi neoon niroom amul ci xarnu bi sharop andaari xam-xamam mësee bu tel wu ayam nga suura nañu ñu wujjam amul ci xarnu bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppi wa tey sareet du leen gëneel bañ ne sareet wàccu na moog waa xarnu bi talif na mooli feesi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelef ci xarnu bi day duusu donga ey detam duuse jalaañu ci dënam mu jéegil waandi jënam te mu saber ci xarnu bi mbaan baa di jaaj gu tabbi jeej fekk ba jaaj gu ne ko mu di ca leer yaa ba ne giig ñi fiy sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ day jàll baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxaale gaa yi xarnu bi waajula sopp dal li baax waajula wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ishaadi mbër mu manu gan yaaram la wuute naag sagan bambaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xar baax la raw na koy xiyaaj lu xel dajul de si koraas fugra raw na góoru faas cakaañi teewe xarnu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñu daaweel caraw ngir li mu def ci xarnu bi Seex Bamba yaa bari njariñ fëringa wute nga këriñ sëriñ si aadi seen yaa mën a leeral xarnu bi si ñoo doon fatafoor sondeel di meneb lumière jant la mu om faw weer leeram gi dar na xarnu Bamba yaa di manduwaar waajoo tabbi doo turéer yaa jant gaay di weer leeri gëndoo ci nun soobu nan la jàllenu waay mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yu baarenu tiyoobu mbooleb xarnu bi Bamba yaay ngeen kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say mokkal xarnu bi leehi wéer nañ ci yow mooy lu mën a xew ngeen urwatul saadu sew deesu ko dog ci bi seex bamba yaay ngeen ji wurus foo genn xànjar daal di ruus la waaji doo turus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la nag ngay takkaay di sun bitim ni jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit yi xarnu bi Cheikh Bamba yaa dib li bi door lambur de wuute na ak coor sëriñ yi soobu ñi sa mboor njëkkoon ñu naatal xarnu bi Cheikh Bamba yaa nu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo borom tooñoo morom til nu tooñi xarnu bi buur jox na lay mi daay diiwaan yi xam nañu sawaay waajoo gërëm kërëm du daay yaay kerkeraanu xarnu bi Bamba yaa kerkeraan ku jëm jala na la ñaan soroon turdi yaa boole boo di xarnu bi def na geeg bu dee te def la mu dee keleng mi um nga bëri jeeg ci mboolem xarnu bi yàlla jiital ca xadim tuddal ahmadul xadim jiitu na adama doom jiitu na mboolem xarnu bi ajaa baabi bale tubaabi jumuloo wala la Bamba noon ñu doxalee nu taal gaay xër nu di sorob dëggoom leen naat ca doqi góor ña ñuy sanaan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn yëngawul ci xarnu bi mu jàllu toog ca gàngu naay buur yàlla rang koy mi diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xarnu bi bila bamba adim kelang moo jàpp seytaane weleng ba tar ko ca gabong ñibbi soo ko xarnu bi xataltu fil baaru layin kab kaboo nat bun amin maal lemin wal xamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonent bi ahlu badar ñoo dakku quartier ka war saytaan armee li siyaara labbi daw ci xarnu bi gabog ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram lambar na seer na biram a joor na xarnu bi keroog labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leeram gi sar na samaaw sar na ci suuf ci xarnu bi tubaabi naa ko nan maro sodaar si naan kabun mero labbi naa kabun wara ñi bil yilif nga xarnu bi te gaaw yi la asamaaw bari yëpp booloo nañ na waaw gorangi lay na sa yow yow nga lambi bi kaaraanga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa sunu alwaa xarnu bi alla kërëg jaam ak gorog ca dog sëriñ buura ki dak bokk ak jaamur ñëpp a daam ci xarnu bi li nit ku ñuul nit ku weex diggante askenul jeex fu nekk daam denu fab seex bu mën a yor waa xarnu be bindee fii yaal fali buur ku ma saxay taal baboor di xeli attaaju foor fajoon nga aji xarnu bi ci soodaan si war ne nërëm bi daanu war ne naam ñépp di sant kay gërëm giɗaade bar seen karnu bi ko merci naalo merci ñoom fe yaag na moƴƴi ɗoom wala fineem o morom yaa dambe tagi karnu bi ken dootu ɗox kem nga ɗox ken dootu wax kem nga wax ken dootu jox kem nga jox dara lewan nge karnu bi limamu shahrane kamal tere mbi bambalay misal giññana mooy aboori jaal xutbi wan ci karnu bi mbooloo mi ewe yoon yaa soomi ngeriñ awoon waman yaruñ yoroon dekkal nga wirdu xarnu bi xaadiru yeesal ngay biram tiijaan yeesal ngay biram saasal yeesal ngay biram kunti jox la xarnu bi lottal nga ñooñ sariyatu sàmmal nga ñooñ aqiqatu sengeer mi mooy tariqatu moo gën a jub xarnu bi bilaa yaa mat li nga doon non sedu tegi cër bu doon wàccal damu la gut ke teendewu lambi xarnu bi mboolem saabatu rasul ak bari daa tag gan gën a béy nga seeni tool bi yaale tooli xarnu bi bilaa yaa mat la nga doon non sedu tegi cër bu doon wàccal damu lagul ceteen yowum nga lambi xarnu bi bilaay amat la nga doono sed tegi cer bu doon wàccal damu lagul ceteen yowum nga lambi xarnu bi ak bay daa tagg rasool mën gën a béy nga seeni tool tooli xarnu bi bilaay amat la nga doon nu seddu tegi cër bu doon wàccal damu la gurte te ndew lambi xarnu bi rasool Buseyru daa tagg rasool Asan daa tagg rasool semal nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janog ngir yaa liggéey ba am wusool ba def xalifatu rasool kawe nga mboolem xarnu bi yoon wa nga aw baraw mbindeef ba def donay gën mbindeef mu ni su ko xamal mbindéef jomm na mboolem xarnu bi diggante mul kéeg malakut ba sar képpé jabaroot kenn musta boole seeni boolut bamba bàjjëb xarnu bi aras la daa giseeg boroom kursi lay xame soloom di wàlla daa fale meteel di folli seebi xarnu bi moom lañu may nuurul jalaal de lu ko may nuurul jamaal boole koog sirul leere mi dar na bi daa leer ca lay jëñe ci biir gii leer ci lay ñoo dee kamaal ga lay meteel seexal na mboolem karnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottalikoo jibril daa dimandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téere yi lay wettilikoo durus ga lay moyandikoo pexe ye noon yi daa ba tana bi talif la daa jëfandikoo mafoo le daa gàggandikoo ikem le daa sugandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawil le daa xamale jaami kaale xëy subaam riwaay le xëy kaam du jën du yow du janni xarnu bi fu mu toll nag day tagg rasool du war wa tey demmi du def dërëm ci te mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo julli ne fii rakka bëggee añ makka ma ne ko ngiy fajlu añ na xarnu bi njool makka dal lay sigiree soo ko tuddee mu daldi ree gi ñaane ji koom waar na xarnu bi fam na ci xëy bi yaa ju koy raw yaa moo xiyaalas fi yaa denam amul ci xarnu bi de doom gu mat gi mu sagu ak am gu gi mu jago ak muñ gu gi mu jago mu sa ci xarnu bi na daabira yam daa tegoor te teewu ko ànd ak sagoom caami boot yu muy fegoo te du ko fekk ci xarnu duniyaa da ko waan gannaaw Moustapha Aliamu laaw jublu njanaaw wakiis da du xarnu bi bëggul galen bëggul midaay bëggul lu ab tubaab di jaay jaayante yàlla sawaay gañe na mboolem xarnu bi bëggul fas ak nag bëggul xar ak ki doom bëggul ta am saqi njuróom du jaay du jëndal xarnu bi bëggul la am rong bagul dox di yori boŋ mu ama sa dox ba dem gaboŋ dellu si bi ji xërnu dërëm du yàq ab daram wurus tax mu ras nawul daram xeebul param moo gën a wuuti xërnu bi dërëm xamee ko xandeer dinaar xamee ko ganaar ku waaru bamba doy na waar ci yàlla ba jub xërnu bi bindee fi fi moom agli yëpp fi moom bagul bañul du xeeb di yee moo gën a wuuti xërnu bi bawal bawal akub ajoor sàmmaki baadooloo ki boo buur kulaaj mi jox lay semu tey ne ñi fi xërnu bi mbàkke gënal fi moom guyaar kon umi mbàkke taar bi kaar kenn ko may sëriñ guyaar xamul ko bon ci xërnu bi tabax gënal mu ami baar angaar gi moom shabaar baali genoom pataar kon du fa jóg ci xarnu bi walaf gënal moomi naar ganaar genoom mbayaar kon taaxi njurbel du fa jaar ba def jumaa ci xarnu bi wata genoom saxaar mbaali genoom daqaar rusul di yalwaan ak ba yàlla jox ko xarnu bi màggat genoom saxaar ndawet genoom kibaar njaccaar genoom gumba gu gu jox tumam ba xarnu bi bambaay borom kun fa yakkoon moo doon lemin moo amul xejje ki seen yërmandey waa xarnu bi baatin la daa fab di joor du mere nit bari ka door mboolem jigéenam ak góor defal na leen ci xarnu bi tarbiya lay yare goneem tarqiyam ak fa moom tas fiye bari dee fi yéem bañ mën a woo mat xarnu bi giraay lay xamal goneem inaaya moo di ay jikkoom wilaay defal borom cofeel gu am ci xarnu bi cofeel gi moo ma ko xamal xam-xam bi na sama xel leeram gi fenn sama xol baawaan ci gaay xarnu bi moo tax nag ba dootuma selaw cofeel gi teena maa nelaw maa ngi wëndeel na ngelaw dootuma toog ci xarnu bi leeram gi dal maa tex saaxel dem ba paraxaan manaan ba man di coroxaan di buusu gaayi xarnu bi Cheikh Bamba yaa di sun imaam yalanteeg fa sun amaam yow lan ba ba saam ra mun nu mboolem xarnu bi sëriñ si wan dañoo texam ñi ñeex ba xeram Cheikh Bamba moo saboon korom safaale mboolem xarnu bi ku leen faboon tekki balaas jël Bamba tekke be balaas kon dey mu wut seeni balaas Mbàkke du maasum xarnu bi xaw si mooy seeni limaan moo sàmm antek alquran addition nan beere ñaan moo ko xamal waa xarnu mi moo am fasaatu lisaan laay moo xam seen cosaan moo xam le wàcc asamaaw jëm si bi suusi xarnu bi moo am maqaarijul uruuf lammiñ yaaram nañ koroo mooy waykatu gën yi mindeef maa waykatem ci xarnu bi mooy mujj saate adnaan yi wàcc aqiru shamaan diram mu xer wu jinaan tuuba li ahli xarnu bi tuuba ñeen la kuy murid waylun ñeen la kuy marid yàlla nu bamba dex murid ne leen amin bi jox naa la faw sama xol saabu nga nee la may setal terum malaani sama xol fuuta lu gàtti xarnu bi bamba dangay boroomi may te nun ndax boroomi mooy moo tax mu sax bi yile way ndaxte nga jéggal xarnu bi wayun ngir bëggi dërëm mbàkke dañuy sàkku ngërëm te bis bi yàlla di gërëm xeet yu newoon ci xarnu bi yow muy liggéeyal nag sa borom ba am ngërëm xayra xadim wàllil yow seen juróom yow ma yàqoo mu xarnu bi tàbbal nu jànnaten naim te ànd vaak si wulti yaayor seeni doom tiji lugal waa xarnu bi rilwaan tiji na le ngewey jox na le ngendi la doy waaju la sommu daldi wey yaame ceebi xarnu bi noppalu ji nag ca illeen yàlla gërëm na la ak lemin yonen gërëm na la ak ñeneen ak xulafaawe bi ak mursaliin ak lawliya ak taabiin ak lanbiya gine yi ak malaaka yi gërëm nañu waa xarnu bi yoral sabong telem fanaan diggante kaw saraak jinaan nottil te lekk nag te naan jaajëf defar nga xarnu bi alhamdulilahi na ngeen di sant rabbal alamin dooma di bàyyi kii keneen man naa defar waa xarnu bi yow mi la geel Moustapha bul fàtte am di Moustapha ak doomi baay Moustapha ñoo ame buuti xarnu bi man na xalifatul xadim fenn place mat na doom te am na xam-xam ami koom mën naa musel wa aqarnu bi noppee goreeg tàllal da joor la moome saalum ak kajoor ku laaj mi jox lay semuur te musa gàntul xarnu bi taalaara jaal aminata yaa doon nu aminata tuubaa du sun madinata yaa weeru tim waa xarnu bi yaa naa xawayta neexata ngir xarnu bi amoo ci dale fii weesu faas yow lañ jébbal xarnu bi raayu ngëneelu yaa kayoor yaa tegi tur bi daw bachar ngir naaru góorog fasu par rawantewul ci xarnu bi mboolem si xaarin wa kibaar yaa tax ñu tabbi jik saxaar di wàcc tuuba ngan jigaar noppal nga gaay xarnu bi robina yaa nguy wala ngaan nuy naane kaw saraag gi naan dootul tappaatu siyaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saay na yaral naalam yàlla ko matal amiin war na xarnu bi yow la Suleymaan xamal oon carrière ba doo yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi Daawuda bambale misaal baytil muqaddis la naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay ngëneeli yoon kemaam yey sedi kokki aki boole nga ko ngëri daam rango amu tixanu bi muridi jox na lay idaay tubaabi jox na lay midaay sultaan nga boole ko gidaay yaa ma tàggal bi yàlla nga raw yàlla nga am muurum murid te yàlla booy muurum mekkit bi àqi xaali bi te yàlla ngay muurum murid te yàlla booy muurum marid bi aqiqaalil murid ndax yàlla naatal xërnu bi alaaw sool falul asim ko may ngeneel dee fi la yeem fàllilu mooy fàllul amin turam bi doy na xarnu mooy doomi shamsin wa qamar mbàkkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bi si diiti baayam la yoraat leeruk cosaan gi dey doyaat ndey jaari xeyl mum moo ame booti xarnu bi mooy nu abalug lislaam fi ñun mboolem sëriñ bi moo ci gën donay wa seynu wala san maay xaadamam ji xarnu bi maaxlef cey ji koom yoxe tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerta xarnu bi dem na ba makkam julli gaay añ na saare ji baay teen diwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi tali baaye may wayam moo doonu duusi xam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xarnu bi yàlla na am li nuy mébét ci moom mu am li muy mébét ci ay seet yu gën yu gën ci mboolem xarnu bi nan tagg Ahmadu Lamin moom la ñu may siral ma soon xar baax la feese ba gun bàyyi ba akulem ci xarnu bi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far kulem ci biir boo gisee mi ngi bëngeer na kuy lu mat ci xarnu bi faj aajam xoo ca gën a gaanu wax boroom mu ne waaw di fal gaaw mat naa ragal ci xarnu bi nday way ja jàngulaan arab taman daxaam du jar suru mooman arab taman warab jommal na mboolem xarnu bi fam na ci baam bu diis te nirul boroom mu tiis mooy dex gu fees moo mën a mandal bi sañ-sañ bala doon ne ci moom jagle ga weesu nub juddoom mbër mu ko suru dal li xajul ci xarnu bi rijaali xam nañ dara jaam bu nee jala ñu sabu jaam nërëm nërëm di shabi baam raamal ka na xarnu bi yal nañ ka may booti lemin fegal ka mboole may noon ku dégg ñaani ne amiin ndax yàlla naatal xarnu bi mbég maa ngi teeru leen basiir doonay basiirun wa nasiir ku teeru lekk ba du xiif du mar ci xarnu bi mu am jalaal te am jamaal te xar kanam bi leer kamaal te bari xam-xam buri kebi ci xarnu bi taar ba ca yuusu al karim bu doom jigéen ña tagog mi yeeg basiirum xarnu bi ci ak rawam la daldi raw foore daa firee karaw te musta jaar ci bi mustafa ala qarnu bi soobu na ngerum tasawuf ku ko raw oon nee na le moo raw ñu xàll oon moomalef sakkaa ngi teewi xarnu bi ilmu diraaya la jagoo mbirum xinaay la ngoo noor nu wilaay sagoo denam amul ci bi durus ci téere alquran mbaa muy julee ka jàng ñaan yooyu le baaxoo te ku ñaan may def ci bi yàlla bi sax ba dégg maam ba ne maam ahmadu maam te doon boot ci daam ndax yàlla na aatal xërnu bi alaahu moo di jenn waay moo jàpp doom def kana baay mukk benn taxawaay ab doori bambam xërnu bi boo gisee muy samandaay seex bamba ñoo nuroo jataay nuroo yaram nuroo sewaay nuroo teej ci xërnu bi nuroo doxiin nuroo waxiin nuroo jëm ak meloog doxiin buy dee nga waa ne ne keneen Bamba ñëwaat ci xarnu bi moo di walax njaanu jinaan bu leen ka xool nag ba taay niroo yaram niroo sewaay niroo deret yi xërnu bi niroo doxin niroo waxin niroo jëm ak melok doxin bu dee nga waa ni keneen bamba ñaar ci xërnu bi moo di walax njaanu jinaan bu leen taxool ba ti kañaan kañaan di tee béje na daan bàyyi ma leer xërnu bi moo doon tab gawan ca moo doon njambaar gi ci moom seen baay seddale jikoom seddi kuli ji xërnu bi mbiram ndey gaaw a soppee biram mbir ma ca baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu ko dolli ay murit te yàlla na raw pexe mërit te yàlla mu jidi farit ba tolle gaay xarnu bi nan ñaan ci yàlla mi sama